ñëwoon tey di waxtaan di échanger ak travailleur bi si mooy secteur énergétique. si loolu jot nañu am benn gis-gis mooy tey fu ñu toll dañuy gis gouvernement bu bees moo ñëw ñu am président bu bees sa ñoom bu ñu toogee rek lu njëkk a def nee nañu ñoom dañuy indi rupture lañ indi dañuy changer. donc si loolu ñun dañ si am xel bu rafet ñu profiter si loolu pour ñun. réforme bu ñu doon def bi nga xam def nañ si ay jéego yu mag a mag tey war nañu mën a taxaw xool mooy gëstu joxe tamit suñu xalaat si tey lu ñu fi jot a def est-ce que lu ñu bëggoon si courant am nañ ko tey ñëpp gis nañu mooy courant dafa cher donc est-ce que laajul ñu xoolaat jéem a taseeg ñëpp pour ñu nekk si biir secteur bi xool nan la ñuy defaraate ak indi beneen réforme nga xam bi suñ ko défé dina doon lu gën pour sénégalais gën pour moy secteur informel gën pour secteur vraiment ñu nek moy industriel mais tay lu ñu mën wax yépp moy lool yépp lu ci si séenu woon gisuñu ko courant nak day lenn ñëpp dañ ko soxla c'est lool état bi lañ na mu yoreel ko bopam. léegi état bi nak yan stratégie lay def ba moomal ko bopam lool yépp tay bokkoon na lu taxoon tay ñu tok fi pour xalaat si yàlla def na muy ñun muy direction général muy suñu invité bi ñun ñëpp def nañ si ak jàngat bu mag a mag se xam naa incha allah rabi suñu génnee dinañ am par exemple ay documents pour jéem a fexe nan lañ koy tegee si yoxo loxo autorité filialisation lu ñu gis mooy réforme la bu ñu defoon mooy lu jiitu mooy dañu nee woon dañuy restructurer waat Senelec mooy ñu jéem ñun defaraat réorganiser benn ñaar beneen jéego bu ñuy def mooy dañuy libéraliser indi ñeneen dugal leen si biir secteur bi mooy ay privé tey këpp ku gis Senelec nu muy doxe gis nañu privé yi ñëw nañu mais nuñ leen joxe doole waroon na fexe ñu yemale ko ak ñu nekk fii mooy mooy nationaux yi ñu tamit joxe tamit mooy ñu tolloo doole ak mooy acteur Senelec mooy ñun Senelec mais tey gis nañu compétition boobu tegul si yoon ñii ñëw nañu jox leen tey lu bari bari beneen si moment boobu Senelec si boppam moyen day gën a wàcc sa lool nag si bëggeen concurrence bu baax laaj na ñu fexe ñëpp ñu yemale leen tamit ñu gën a am lu gën a bari si euh, Senelec ñu dénk ko mooy état bi moom ko parce que loolu souveraineté énergétique lay wax mooy soo moomul ëllëg mooy ñu ko yor mën nañ la def ay moyens de pression sa yaakaar naa courant tey ku ko coupé population ñoom ñoo njëkk a ñun suñu xalaat yëpp mooy nañ fexe am benn courant nga xam état bi moo koy contrôler ñu ëpp si doole mais tamit dinañ si ubbeeku si ay privé mooy surtout mu doon ay privé nationaux mais am lu leen jox loolu yëpp suñ ko boolee yaakaar naa war nañ mën a ñëw fexe am courant bu doy nga xam courant foo toll di nga ko mën a jot c'est ak njëgu bu yomb